Bienvenue sur Salam Vision. su waxee loolu ñëpp dañuy jug taxaw ca kaw yël bu tàggoog bàkkaar xasida gi day far bàkkaar jug leen taxaw ca kaw yël bu tàggoog bàkkaar xëyru leen ñi yàlla ila illallah illallah محمد رسول الله باتا وجنات الألفاسا يوما يوما يوما ينفق إيسو نباتات بيخاد رسول الله لا إله إلا الله محمد ثباتا وجلات الألفاسا يوما يوما يوما يلفق في سور نباتات بيقاد رسولا لا إله إلا الله إلا الله محمد حبا ونباتا وجنات الألفاسا

ينفق في سوره بيتة غير خادم رسولا تسليما صفة اللوى في تخميس أستغفر الله بالله محمد الإمام نيال قلبهم من خير تجرى إن الله هو خيرا وعصم حدرا واستغفر الله إن الله غفر رحيما ولو أنهما إذ ظلموا عنه الوجد لو توابا لمن إلا محمد رسول Good boy. ومن يعمل سوءا يصف الله غفورا رحيما استغفر ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رعاه ثم توبوا إليه بسما عليكم مقرارا ويزدكم قوة إلى قواتكم ولا تتولوا مجرمين فسوف بأمر ربك واستغفروا إنه كان توابا لبيك ربي لبيك ربي لبيك ربي إلا الله محمد يديك مقيرا على نزل بسلاله رقبا في قفران وتخبل ما لو في عملي فإلا انتزال الأمر فإلا محمد أمركم محمد رسول mbooloo mi ku jug màggal Sëriñ Bamba yal na ko màggal déwén jug leen taxaw ca kaw ñu sant Sëriñ Bamba jar na ko borom jaareem xaayilan iltisaa لن لأمركم محمد رسول الله ku jóg balaa ngaa toog ñëwal fekk fii Serigne Gora Diouf jox ko addee Serigne ku ko jox addee Serigne Touba na ko jox déwén yu bari. أحمد أحمد أحمد محمد لا من خبار من من لمت والبار أنا سبسرين بارا لقد جاكنو ما قلبي سيبسرين مختار برم قرن قرنا

Fall rek saa yu ñëwee ma ñëw ne rek sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg yàlla na wér barke sëriñ Touba waaw ba ma kon maa ngi fasaale ñëpp ci doole sëñ Bamba képp ku bëgg a ñibbi si ci jàmm yàlla na sëñ Bamba may xéewal ñu ñibbi na ndax tukki dafa métti tukki métti na góor ñi sonn nañ daw nañ ba tàkk jërët yàlla na sëñ Fall wala ban mën a ñibbi si ci jaboot bu génn ku a rek say waa kër la ko génn dafa ma ko métti na lool nag yàlla na yàlla doole seen i xéewal doole bu baax ba soxna yi dina kontaan ñun doo nga leen tax a génn ak sunu njaboot du kenn am na ci ñu bëri gisatuñu nday gisatuñu baay soxna yi rek waaye nag sëñ mi mën naa faj aajo yàlla nañu fajal aajo yow it yàlla na la yàlla bàyyi seen xel ci loolu sëñ Fall ñi bisi naa maa ngi ci rajo sëñ Seex ndigal bi léegi 105 point 5 rajo bi ñëpp ku ne léegi leen mën a xaar di waxtaan ak jigéen ñi lii la ma Cheikh Ibrahima defal moo tax ma toog dematuma ba ma ko waaye lu ne waa ba ma ko defal nañ ñee ñee war nañ ma génn war nañ ak sëriñ Ba sama kër di ma jaa yàlla na sëñ Tuubaa defal jàmm la ilaha illa Allah amoo rijaa la ilaha illallah ni ma la la ñaan yërmande faal keroog doole faal fan jafe ni ma la la ñaan faal yërmande keroog doole faal fan jafe ma yàlla ñaan yërmande yaaram bayu mi Mbàkke yaay Falilu ni ma yàlla ñaan yërmande bayu mi Mbàkke yaay Falilu fu sa waay ne ko aboori jaal nga fu sa waay ne xam nga ko aboori jaal ba fu waay ne xam nga ko omi Mbàkke Falilu jàmbaar ja waay ne xam nga ko maat jàmbaar ja yaanu moom a gën woor faal maa leen moom ñun ñoo ne yaanu moom Mbàkke Balla dundal Seexu mi Mbàkke yaay Falilu dundal yaanu moom bokkewul ak maa leen moom ñun ne Mbàkke Balla yaay ki nu moom dénkaane ka nga wóolu gam bu dëggoo day ànd ak wóolu maam seera fa aboori jaal ba yaanu boole ummi Mbàkke Falliloo jàmbaar ja la ilaha illallah la ilaha illallah ni baax soni leer ba mu feeñ ci bite Cheikh Oumy Mbacké yaay Fallilo may ni baax soni leer ba mu feeñ ci bite Cheikh Oumy Mbacké Fallilo yaa moom kaa noo fu la neex kaay nga jëmenoo aboori jaal ba aboori jaal ba lamp lañ koy woo aboori jaal ba lamp lañ koy woo من كان لله كان الله جل الله ومن جاءه بالمنة إله الله بلا فله لعنة الموت من كان لله فالله جل من تاسى بما وحده بما nga xam ne ñoo moom ñoo bokkoon liggéey bi ca réew ma yàlla dogal mu toxoo ci ay loxoom ci saayir tabbi ci loxo yi sëñ Tàkko Njaay mi nga xam ne mooy kilifa gi léegi di yëkkati ay kàddu it ci turu sëñ Tàkko Njaay ak mbooleem ñi mu àndal liggéey bi nga xam ne yàlla dafa baaxe ñu nekk ak moom ca Tuubaa ba ma ko biñ nee Touba Bamako kon ñu wax ne Touba Mali gépp waaye kàddu yi ci jëkk mooy dañuy àndandoo ñun ñëpp di nuyu sunu kilifa gi nga xam ne moo toog ci jotaay bi di sunu sëriñ di sunu kilifa muy sëñ Cheikh Oumy Mbacké moom sëriñ Falilou kilifa yi wax nañ ne ñu ngi ànd ak bokk yëpp taalibe yi Bamako yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di di la jottali nuyóob ñu ñëw ak nuyóob ñu ñëwut di la siyaare di la siyaare waaleel ña nga xam ne dañoo ñëwut te nekk ba ma ko ndax ñun ñu ñëw ak ña ñëwut ñoo bokk pas-pas ñoo bokk yéene ñoo bokk ak cofeel ci yow kon wax ne mag ak ndaw góor ak jigéen ku la xam te nekk ba ma ko wala Mali ñu ngi lay ñaanal sa barkeb sëriñ ba sëriñ Falilu Mbàkke yàlla sunu borom miy dimbalee tey dimbali ko ko soob yal na bokk ci li ko soob mu dimbali sa jëmm ji nga dund nga gudd fan lool ba sa dund nekk kéemaan ci jullit yi sa dund nekk kéemaan ci taalibe sëriñ Tuubaa yi te mooy loo gudd fan rek doyut ñëpp la koy ñaanal loo wér doyut ndax gudd fan day ànd ak wér-gi-yaram gudd fan googoog wér-gi-yaram dañ ciy boole it nag yàlla defal la tawféexi Sëriñ Tubaa joo xam ne li nga bëgg a liggéeyal Sëriñ Tubaa lépp taalibe yi nee na ñu ngi ñaan yàlla mu kàttanal la ba nga mën koo liggéeyal sa maam ju baax ja Sëriñ Tubaa ànd ko ak nun ndax yàlla moo nun a féetale nga nu ngoo féete ak nun nu nu ngoo ak yow sëtëb sëriñ Tuubaa direct nga doomi sëñ Fàllu jamono ji ngay jóge senegal gii di ñëw Mali mën na maa wax ne dem nga fa ba dikk su fekkee ne dellusiwaat nga la nga fa jële motu cinq cent mille ndax sa yoon wu jëkk daf ma faa fekk ma nekkal fa mag ñi nekk diggante mag ñi ak gone yi di dox yittey sëriñ bi nga fekk ma fa fekkin wu rafet waaye ñi jëkk a xam ba ñi mujj a xam ñoo yem lu ñu la mën a seereel taalibeeb sëriñ Touba bu am yéene liggéeyal sëriñ Touba dafa seeni ko ànd ak taalibeeb sëriñ Touba yi xew boo kenn doonaaw kenn ngir alali àddina waaye xëy boo kenn nag tamit yow taalib sëñ Tuubaa rek nga xam boo xasee bëgg sëñ Tuubaa doon taalibe sëriñ Tuubaa foo nekk sëriñ Seex Umi nungu na la faa fekk ci atelier yi ci butik yi ci mbaari tëgg yi képp koo xam ne kii danga nekk ba ma ko yàlla su borom dogal nga nekk fab taal bi foo mën a nekk fu nekk rek sëñ Cheikh mi fekk na la foofee defal la fay ñaan yéene lim yéene boppam loolu nag moo tax mag ndaw góor ak jigéen ñëpp a maase yéene la jàmm ndax ñëpp nga yéene jàmm ñun nag sañ nañ laa yéene jàmm ndi ay taalibe lañ waaye soo ñu yéene jàmm mu dal ndax ak sëriñ nga waaye nag waa kër sëñ Fallou koo ci dajel ku nekk wala nga toog ak moom soo ko ne ab sëriñ nga moom dalay wax ne la fekk ne moom kenn képp la maanaam du mën a dajale mbooloo waaye joxoñ ba sëñ Tuubaa joxoñ te fokk kenn nekk ca seen seen kanam moom mi defut ne moo leen yilif déedéet liggéey bi dafa dikk rek yenn ci boppam waaye moom ab taalibe la def boppam ci mboolem ku mu fa nekk di liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye nag sant na leen gërëm na leen ku xam ba ma ko tey ak ni coono yi ba ma ko mel diggante daaw jeg ba ren kenn ku nekk xam nga ne embargo lañ ko def international réew yëpp réew yu mag yëpp téye seeni loxo ñoom ñu nekk fa maanaam gouvernement ba am seen fulay bopp taxaw taxawaay seen taxawaayu bopp te tamit ñoom ña fa nekk kenn ku daan xam ba ma ko nam daan yëngutoo xam ngeen ne ba ko yëngatuwut noonu waaye nag lañ daan def lépp ci kër sëñ Touba ga lañ daan taxaw ci kër sëñ tubaaga ga lépp ñoo ngi koy taxawu nañ ko daan taxawoo dara manqué wu tali taalibe yi rek la nee na du moom de waaye taalibe yi mu ànd di liggéey sëñ Touba la kon nag cant googu mi ngi la koy jégteel yow mi nga xam ne ndamal ba ma ko sa ndam la sa ndam ndamal waa bu ma ko la kon nag leer na la ne moom mii kat ni mu ñëwee ren ak lim la woon ne la lii la taalibe yi liggéey ak wax la lañ ca def yow leer na leen ne taalibe yi ba ma ko seen Pastef ak seen ak taalibe sëñ Tuubaa nangul na leen ko sa daraja yow mii ndaxte sëñ sa waajuru baax wa naa ko wax sa waajuru baax wa sëñ Abdul Ahad da daan wax ne téeméeri xar bu leen génn gaynde jiite xar yëpp gaynde la ñuy doon waaye téeméeri gaynde nag bu leen am xar jiite xar gaynde yëpp xar la ñuy suppiku waaye kon jàmbaari sëriñ Tuubaa bu nekkee ci kanam njaboot ak sëriñ Tuubaa gi maanaam lu ñu def rek dañuy yaakaar ne lii dañ koy xeeb bëgg a jëm ca kanam te wax nga léegi ci biir jataay bi yow sëriñ bi nekk ku bëgg dox ku nekk di nga mën ngaa nekk sëñ Muntaxa dox ndax sëñ Muntaxa moom taxawut day dox kon ab taalibe bi bu taxawee bañ a dox ci moom la waaye sa kilifa moom mi ngi dox boo ànd sa kilifa nag bëgg fu mu àgg nga àgg fa maanaam bu doxee da ngay dox ànd ak moom léegi léegi nag sëñ sëñ tàkko nee na mi ngi lay mi ngi ñaan ci sa jëm nga ñaanalal ko mboolem taalibe nekk ba ma ko taalibe nekk Mali gépp ndax ségu ak Sigasoog kaay ak fépp ci lañ bokk ak mbool ak may naag fu taalibe nekk rek maanaam xam nañ ne maanaam liggéey bi liggéey bi sëñ bi dëgg maanaam ci kër sëñ Tuubaa ga la ñuy daje di ko liggéey kon nag sant na ñëpp gërëm na ñëpp te mi ngi ñaanal ñëpp li ay kàddu la yoo xam ne kilifa yi waxoon nañ ne nañ ko jottali la ci des dañoo wax ne sëñ bii waxal na boppam ne xam naa loolu sax buy leeral dina ko leeral boppam jokkoo naag magam ju baax ji waaye jokkoo na ak sëriñam bi Cheikh Moudou Mountakha mu Cheikh Basir jokkoo na ak moom fan yi weesu yàggut yaakaar naa booba sunu kilifa gii di Lamp Thiam maanaam mi ngi toog ci wetam ba muy jokkoog sëriñ bi bi mu jokkoog sëriñ bi it sëñ Cheikh Lappé la sëñ euh, Cheikhouna Sylla la jot Cheikhouna Sylla moomee mooy toog ci wetu sëriñ bi waxtu wu nekk mooy toog ci wetu sëriñ bi waxtu wu nekk moo wax ne lii sëñ bi wax noonu la ñu ko sëñ Muntaxa waxe seexi sëriñ Basiiru yi bii jébbale seen addiya ci ajjuma ji sëriñ bi moo na waxal boppam ne fi ba fukki fan nañ ko may waaye sëñ bii nag day rakam di taalibeem di soppeem am fu mu teg sëñ Muntaxa am fuko ko mun Muntaxa teg ba tax na bi mu ko bi mu wooy seexu naa di ko di ko di ko yëgal bés bii maanaam sëñ seexu naa da ne sëñ Muntaxa ka tañi nii xaar ma jox la ko ak moom direct fexe na ba jox ko sëñ Lamp Thiam mii moo wax sëñ Mountakha direct ci téléphone bés bi nag dañ daan def bu ñu jógee fii kër sëñ Mountakha la ñuy jëm jébbale ji liggéey ba jébbale ji liggéey bi sëñ bi nag moo ko toxalal boppam moo wax ne fii ba fukki fan nañ ko may moom mii mu laaj sëñ Seexuna ak sëñ bi ñu ne kon nañ ko sëñ samedi la sëñ bii ñëw kon bu dimanche kon ku mën a fekke si waat jébbale liggéey bi nanga nga fekke si waat jébbale liggéey bi ndax fii lañ daan jóge dem foofa waaye sëñ bi moo ko toxalal boppam kon na ko ñëpp xamee noonu ñi nekk ci jotaay bi toog nañ ko xamee noonu waaye ñi nekk ci bitim réew nañ xam ne bés bi sëñ bi toxalu ko sëñ Tako njaay mii toxalu ko El Hadj Ibrahima Gueye toxalu ko sëñ Mountakha moo wax ne nañ ko may feek fukki fan xañ na kon samedi lay génn bu dimanche man nañoo may ñu dem jébbali ji liggéey bi loolu ay kàddu yi la yoo xam ne macha allah waa dañuy fekkee de ben waaw dama wax ne dama wax ne wax ne nañu sant yàlla ci loolu di julli ci yonent bi salaam kàddu yi ma doon wax tàmbale ko ci Ibrahima Gueye jëm sëñ Tako Ndiaye dafa am bu ko tudd koo xam ne boo tuddee kii tudd ka ca des am na ko ni ki diggante bi fàtte woo ko boo ne un ne trois deux mi ngi ci diggante un ak trois kon fàtte woo numéro deux bi da nga ko ci numéro trois bi sëñ Mbacke Seye fu mu nekkut su fa Ibrahima Gueye nekkee maga fa maanaam fu mu nekkut fu fa sëñ Babacar Ka nekkee ma fa sëñ mbakke sey nee na ci kaddug Ibrahima Gueye ci kaddug euh, euh, sëñ sëñ Tako Ndiaye mi ngi sant waa Bamako nee na ma ngi fii toog na fi yàgg na waaye dara luy xew Bamako lu ko ump amut jàpp ngeen ko te bàyyiwu leen ko cofu leen ko xew bu leen xelaa tamit tam ne ni ngeen def sëñ Ibrahima Gueye rek doy na sëkk bu doon yem ci sëñ Ibrahima Gueye day doy sëkk waaye gannaaw léeg-léeg ngeen leeral ko lay xew lépp te bëggut lu dul yoonu liggéey sëñ Tuubaa ba ca Bamako di gën a jëm kanam ñu gën a kawe kurut waa Bamako nee na kon loolu xolam sedd na ci xelam dal na léegi la ma woo di ko waxaat kon sant na gërëm na kon li ci des ñun mag ñi ak ndaw mag ñi nekkoon foofa te ñibbisi ñun day ñu leen gis nañ liggéey sëñ Tuubaa fa ngeen ko teg barki démb gis nañ gis nañ màggal ga ngeen màggal ca ca ca ca ca ca ca Bamako daanañ fa màggal waaye màggal gu mel nii moom mosu fa am kon nag loolu suñu xol seet nañ suñu xel dal na ci yàlla na fukki nag ak ñet ak ya ca topp ak ya ca topp ak ya ca ba mboole mbooloo ma fa nekk sëñ tàkko nee ne musuma gis mbooloo mu toll noonu kon nag loolu ak yokku la sëñ Tuubaa nag boo takko sa ndigal da nga koy liggéeyal maanaam bu liggéey ba jëmut kanam du sëñ Tuubaa kese du sëñ Tuubaa kese kon nag na leen leer ne sëñ Tuubaa ngi leen di jàppale ci liggéey boobee waaye sëñ Seexu mi mii mi ngi ñaan yàlla may ko kattan ak ak wér ndax bu soobee yàlla ñëw fa daaw xaj na ñëw fa daaw jéeg waaye mooy fu ngeen nekk yéen waa Bamako incha allah bu ko yàlla may wér jii dina dagg ay itam yëpp di ko àndaat ak yéen ay fan yi fan yi fan ba ngeen xam ne fàttewu leen fàttewu leen ko lii ay kaddu lan tayit nag loolu sens la de doomi sëñ Fallou di am ngërëmal sëñ Fallou am ngërëmal doomi sëñ Fallou yëpp am ngërëmal magam yëpp bu ne samam xelan ci yéen seen xel war naa dal seen xel nekkee ci moom seen xel war naa dal ndaxte ku sa xel nekkul ci Cheikh Oumy sam xel seytaane nga ca waaye sa sëñ Cheikh mi xajul cib xol seytaan da ca xaj sëñ mi mii xajul ci xol seytaan de ca xaj barke Cheikh Mountakha li la li la ñëpp yéene yal na la dal amul kenn ko la xam ku la guddi gi fan amut kenn ko la xam ku la dul fan wu gudd ak ak wér amul kenn ko la xam ku dul ku nga toog fi bu am ngërëmal sëñ Tuubaa toon ànd koog yow yow li sa li sa waaju defoon rek nga def jaay jaay jaay mbàkke gi ba mu jeex tàkk jënde ko ak jënde ko taalibe bi jaay njureel gi jëndee ko ak ja jaay njureel gi jëndee ko ak taalibe loolu nga def bi bu nu watiya bil irada lakum li kay onza bi xarxe aada min bax di mastratu ma xam mini haditu alakum bi xayri man ni fal taqbaluha yaa ma rasul kurama la sëñ Tuubaa la waxoon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangul na ko ko waaye feeñ na ci ak njabootam keroog maanaam sëñ sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa seere na leen ko de bi sëñ Abo Mbàkke ànd ak njabootam sëñ Fàllu bi may leen ñu tuuti waay li wax bariwut bés bi rek lañ am bi sëñ Abo Mbacké Baraka ànd ak ñëw teg sëñ Fallou gépp yëkkati trois cent treize millions trois cent treize millions ñetti téeméeri million ak fukk ak ñett la yëkkati di ko jébbal magam ju baax ji Cheikh Modou Mountakha toog yëkkati ay kaddu am na ku yëkkati kaddu ci turu sëñ Abo keroog bi ko sëñ fallu bi ko sëñ Mountakha di tontu da ko ne dara du ma xeeñ dani ko man dara du xeeñ ci àddina bu njëkk ba nag daana wax ak nun da daan wax ne sëñ Mountakha da daan wax ne man dara du ma xeeñ lu àjjana ci jamono yooye boo sëñ Basiru la waaye jamono ji ne la sëñ Tuubaa nag da daan dara du ma xeeñ rek ci la yem nee na waaye bu ñëwatee sëñ Fàllu ñëw ci moom nga tag taalibe koy xeeñ ci ñoom nee na nee na saa bu ñu dikkee da nga tag taalibe gi moo moo koy xeeñ kon sëñ ni li ni sëñ Tuubaa nangu woon taalibe ak sëñ Fàllu ga noonu la sëñ Muntaxa seen mag ji négocié nag taalibe yàlla ngeen fi yàgg te wér te li te taalibe ga ñu nangu taalibe ñu nangu moo gën ci àddina gën ci àlaxira moom la Cheikh Rafal moom la maam Cerno am moom la Cheikh Saa Jenn am moom la se moom la moom la moom maam Cheikh Anta fi gis ku ne ñu koy topp taalibe gu nangoo tax ñu lay topp yal na la fi yàlla yàggal te wéral la moo wax ne sant dañ gërëm nañu xam naa wax ji fii laa ko yemale ndax li duuf ki nag wi dañuy wax ne xajul ci cin li waaye la ca gën a duuf kenn du ko bàyyi kenn du ko bàyyi gannaaw la gën a duuf ca nag wa kenn du ko bàyyi gannaaw la ca dul xaj kay leneen la lay doon moo tax na kàddu yi ma wax mënu ma koo ñàkk a wax sëñ bi ne dafa am lu ma sant te daan ñu daan ma ko sant fii moo woon ko daaw ni dinaa dikk dinaa dellu siwaat fii ngeen gis ma yéen ñii fi nekk di ngeen dellu siwaat ngeen gis ma waaye ki may waxal ku nekk mooy ki gëm ki gëmut sama yoon nekkut ci moom man leer na ma ne dinaa dellu siwaat fii sëñ Seexum mi teew fi ñii nga xam ne ñoo fi teew ñëpp teew fi ku gëm laa wax ku gëmut sama yoon nekku ci ni ma sëñ bi sant nag dinaa ko def ndax kii sëñ Fall lay bàyyam takat xarqu aada la wax sukkuran jasaakum laahu xayran ah waaw yéen a ngi nii ak sa sukkuran jasaakum laahu xayran ak sa nañ ko daaw fekke déwén de dinañ ko defaat nag ren barke Cheikh Mountakha li may wax nii li wax nii ku gëm baax na ku gëmut nag booy wa nga génn ci bit ndax li lay dal feeg déwén yaa ko teg sa bopp kenn tegule ko yaa ko teg sa bopp jazaakumullaahu xayran waaw waaw waaw sukuran jazaakumullaahu xayran est-ce que <laughs> sukuran jazaakumullaahu <laughs> waaw <laughs> waaye sama waa jasa waaw aka sax sukuran jazaakumullaahu xayran waaw dañ fi yàgg ñun ñëpp bokk yàgg waaw maam Bousso li ma lay dogul xam naa ngeen may nu nu àggale kàddu yi kàddu yu gàtt doon rek gannaaw kilifa gi ñëw na bi ñu nuyoo ak di joxe ay siyaar tudd nañu aw turam xam ne kër gi këram la Serigne Cheikh mi ci njabootam la bokk bisimilah ma ne bi ñuy wax léegi tudd nañ Serigne Tako ne kër gi moom këram la duñ fi daje mukk ba tàggoo te ñëwu fi ñaanal nu bisimilah ñëw na fi nag dama dem bay daaneel lii de ko mënut a ñàkk a ndax su ko fekkee su dikkee dina ma ko def loo moom te laa yemoon kat fa laa toll woon fa woon nga dikk waaye waaye waaye ñëwam ak li sëñ bi def ñëwam gii ak li sëñ Seex Umi def daf maa fàttali li li sëñ Seexu mi waxtaane ak ñun ci biir li sëñ Seexu mi waxtaane ak ñun ci biir nee na 1963 bi sëñ Fallou Mbacké dee ubbi jumaay Touba dafa taxaw camin min barba di xutba rakam ju baax ja sëñ Bassirou Mbacké ne salaamaaleykum dugg ci biir dugg ci biir jumaa ji sëñ Fallou ne tek dagg xutba ba ba Cheikh Ahmad Basir toog mu tàmbaliwaat ba mu waat xutba ba ba ñu noppee ca julli ga ba delluwaat ca kër ya ay kilifa dañ fa ca moom ne ko ah ñu de dañoo mel de ngaa juum wala nga jamaj mooy leen bi ma jàkkaarloo sëñ Basiru Mbàkke muy dugg si ma ne tekk sëñ na maa tagraaraat maanaam man sëñ na maa delluwaat ba mu waat xutba bi ndax maanaam teraanga ji ma ko jox ak cër bi ma ko jox biir na ma ne am naa ci ngërëmal sëñ Tuubaa te man may def xaw ma am na ci ngërëmal yàlla am ci gàttal sëñ Tuubaa nungul na ma loolu te li may def xaw ma yàlla nungul na ma koom déet kon moom bi mu gisee sëriñ bi muy ñëw dafa wàcce ci suuf dafa jéppi ko sax bu ko xool ci ñoom di nga xam ni ngay jàppe sa mag ku xool ci ñoom di nga xam ni ngay toppe sa baay ku xool ci ñoom di nga bëgg ak mbokk ku xool ñoom di nga yërëm doomu aadama yi ku xool ci ñoom di nga ñaanal doomu aadama yi wàcce sa daraja ba nit ñi mën mën laa jëriñoo ñii xam nga ne xam nga ne seen doole xajut fenn noo ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa yaag sa mag yu baax yi ba ci sëñ Abo yeleen fi yàlla bay ngeen yàgg fi wér seen yéeni sëñ Tuubaa ngeen mën koo def na ngeen ko bëggee barke Cheikh Mountakha li nit ñi wax naan kenn ku nekk am nga sëriñ waaye kenn ku jàq ku nekk wooy sëñ fallu billaahi loolu loolay dëgg de sëñ fallu du moroom ku yàlla mës a du moroom ku yàlla mës a kon sant nañu gërëm nañu te ngi ñaan léegi nag li ma sëñ bi santoon laa bëgg a def sëñ tàkko ngi nii toog maam bu soo ngi ne toog sona may mbàkke son la sëñ Lamine maa ngi leen di siyaar kenn ku ci nekk su fekkee ne sa xol nangu na jàppal sab ku saf xol nu ngu wut nag nga am ñagg-ñagg bu jàpp sa jë maanaam koo xam ne kii amoo ñag ñagg barke Cheikh Muntaxa dogu naa ci jëmi sëñ Fallu Mbàkke ne bu déwénee dinañ dajawaat fii tal maanaam assurance laa leen defal maanaam yéen ñii nekk ci biir salle bi nii leen assuré bokk ki nekk ci biti dox ku ci nar a génn àddina yàlla dina yël sa gro jox ko aw jën jën wu nekk ca géej ga mu faatoo mu faatu la nga de nga dund kon nag naa jàpp ngeen seen i jë te ñaar de ay dewi sëñ Fallou ngi nii toog jàpp seen i jë lii moom du bidaa maanaam li yàllay defal doomu aadama asiru kutima isa ufsiya sara sarra gis nga secret baatin la moo ki budit ñoo yem loo ci feeñal rek musiba am am na secret yu yàlla def ci doomu aadama yi billahi barke sëriñ Tuubaa duñ ko feeñal duñ ko feeñal bisimila maa ngi tàmbali a'uuzu bi kalimaati laahi taammaati min sarri maa xalaq wala hawla wala quwwata illa billaahi aliyul aziim bismillaahi lazi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul aliim alhamdulillaahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinaa siraatal mustaqiima siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wala daalliin wa kun lanaa haaziman min kulli mahlakatin wa najjinaa min balaa dahri yàlla wa kaamilan kulla maa nalu naqsuduhu wa ablanaa kulla maa naxtaaru yàlla wasluk binaa nahja rushd wakfinaa sararan watlana jinna wa seytaani allah tawi lana umrana tawi lana umrana tawi lana umrana sahih lana badanan sahih lana badanan sahih lana badanan hab lana rushd wa tawfiq yàlla yaa man ala kulli shay'in qadir wa ala arsil asim istawa bil qahr yàlla inni sa'atuka qalban khasiman mutawadi'an wa hilman kasina fi allah allahu ayyun samadun wa baqi subhanahu wa sukana fi wa akhi wa nanu fi kana fi manihi min kulli sharrin wa tansani mustamsikina bi khiyas amada khairu ana mutamtada man khala fi sama bay amna wir mucc am yàgg yo ko barkeel wér mucc am yàgg yokk barkeel wér mucc am yàgg yokk barkeel barke Serigne Bamba maam Thierno Cheikh Rahim Fall barke maam Cheikh Anta barke sëñ Modou Moustapha barke sëñ Modou Mourtada barke sëñ Salim Mbacke darajey Cheikh Ahmad Basir guddi gi fan wér gi yaram muj gu rafet guddi gi fan wér gi yaram muj gu rafet uloofu salaatin man salamin bilantiya ala abdi baaxin saana ruuxi wa jismaani allahumma salli ala sayyidina muhammadil faati lima uxliqa wal xaatim lima sabaqa nasir aq bil aq wal haadi ila sirtal mustaqim wa ala ali qadri aka xadri aka xadri wa midal aysin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaam fi dunya wa salaam fi barsaq wa salaam fi alaxira wa salaamun alal mursalina walhamdu lillahi rabbil alamin barkeb sëñ Fallu barkeb sëñ Fallu barkeb sëñ Fallu barkeb sëñ Fallu barkeb sëñ Fallu barkeb sëñ Fallu barkeb sëñ Fallu dara ji Cheikh Amadou Muntaxa ku fi teew ku nekk yal na sama borom guddal saw fan ma ay lëg wér bés bi yal nañu ko fekk waat na gën a si déwén ci barke sëñ Fallou Mbacké ci barke sëñ Fallou Mbacké ci barke sëñ Fallou Mbacké ci barke Cheikh Mamadou Mountakha yàlla faj aajo yi baal leen màq yi ñëpp baal naa leen yàlla boole jégal asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu asalaamaaleykum mbooloo mi noo leen di nuyu kenn ku ne ci saw tuur di la fay ci saw sant noo sant yàlla bu baax noo ngi leen di ziar bu baax di jëkke ci ziar bi ak nuyoo bi ak di leen sargal ak di leen tatagal ak di leen bége di leen ñaanal mucc ak xéewal ak suturas àdduna ak su alaxira noo ngi koy jëkke ci sunu sang yu baax yi toog noo ngi koy jëkke ci sunu sang yu tedd yi nu toog ci seen kanam nga xam bis bu saa bu nu toogee ci seen kanam dañuy am taw féexi ulaika alqawmu laa yasqaa jalisuhumu is yaksibuuna almuridina alsaadati nga xam ne boo toogeek ñoom texe boo toogeek ñoom mucc boo toogeeg ñoom raw boo toogeeg moom sa pas-pas yokk boo toogeeg ñoom sa taalibe ba gën a jàkkandiku boo toogeeg ñoom di gën a xemmem sëriñ bi bay sëriñ dakko nangu lay siyaar ak sàkku ju baax ji ak sa njabootu bopp gi ak seen jigéen bii di àll soxna Mam Bousso seen rakk yi seen lami ak soxna si ak mboolem njaboot gi sant Mbàkke nu ngi ci seen wàcc fi seen suuf xam nan ni sëñ bee waxoon lukun la da cheikhi kamaytin wudia bayna yaday xaasilihi tantafia bala ngaa jëriñoo Sëriñ Tuubaa a ngay mel ni néew bi faatu ci kanamu ki koy sang nga xam ne du man ci moom boppam dara du xam ci boppam dara du jéem ci boppam dara ki koy sang koy sangee nu ko neex ak fu neex ak lu ko neex nga doo ko jëriñoo sëriñ bi nun nag alhamdulillah bi ngeen nu delloo sunu bopp ndax ku joxe sa bopp moomu doo sa bopp te dañu wax ne aslamtu nafsi woowul leen nu campagne ñu leen nu noo xool ba xam ne li suñu digganteeg suñu borom liñ ci bëgg mënuñu ko kenn ku mën na mucc ci muy ak mooy ci nun amut ku mën a sax ci li yàlla bëgg sax ca dàkk yàlla andil nu koo xam ne dañu maay ximan maay malaas maay mifsan mooy yéen ñi bu dee wéeru waay mën daw si leen dikk bu fekkee da ngeen a bëgg a aaru daw si leen dikk bu dee da nga bëgg a xettali ko gaaw leen bala baa dem liggéey ko ba nu teg ci sunu bët mu bàyyi noog ñoom ñun war na am ngor war na noo am jom war na noo am aw fit war na noo am ak dëggu ci sëñ Tuubaa ba mu jaral sunu lépp nu fab njabootam ki def leen ay org ak catégorie aj leen bañ jàllal leen nu fuglu ci ñoom ndax ñooy sunu sëriñ Touba ñun ñii kenn ku ci gis sëñ Touba bu dul ci gént amut am na ci ñuy bari sax gisatu doomi sëñ Touba ñii nu gis nag alxuraan moo nu waxoon ni wallazina amanu wa tabaatum surriyatuhum bi imanin alxaqna bihim min surriyatin wa ma alatna min amalihim min say ki ne woon sëñ Touba dong la gëm moom dong laa doyloo moom a doyul ci sama lépp moom laa jox sama bopp fekke sëtu sëñ tubaa te bu waxee nga ne moom maag moomay añ maag moomay reer maag moomay ndëkk ndëkk ba tax a joxoo ko la nga ne boo gisoon sëñ tubaa doo ko def te léegi nu ngi nuy bëgg a nax léegi sëriñ amatul koo ko wax seytaane la ay jooju ma jàng yàlla nee na alaaji sëriñ soxo bi mi alaaji sëriñ takko bi ñu àndal ngi jëmmi sëriñ tubaa sëñ bi da koy wax de sëñ Cheikh yàgg na wax dee leen nu yërëm de ku ngeen ko ci sëñ Tuubaa mi du ngeen ko jàpp de ñun lay dimbali de waaye bi lay mat na ko ci noonu mat na ko sëkk ci ñun barki sëñ Tuubaa du tooñ kenn te ku ko tooñ mu baal la kenn ku ne séq nga ak moom loo xam ni bu beroo na ngay defee ni yow dogg la bëgg mat na ko de bu nu kenn nax sëñ tubaa fi nekk kenn du fi dara borom xam-xam yu rëy yii ngay gis ñu di leen jaay déggi ayaaki déggi addis amuñu xam-xam sëñ Tuubaa am xam-xam moo dox jëm ci boromam ba àgg ci boromam rek soog moom ba boo ko bëggee xam bokkaale yàlla moom rek su fa àgg kenn fa moom rek moo ne dal rasulullah liggéey ko liggéey boo xam ne nii sa bu ne yonent bi aleyhi loo bañ bañ sëñ Tuubaa sa xel ni yar ci moom moo tax yàlla garaate ko moom képp ci nit yàlla li la turam taqaloo ak turu yonent bi xaadimu rasul nun donga ko am keneen amu ko nun dongoom xaadimu rasul kon nag nun tamit war nanoo am fulla ak fayda ak jom ak ngor waa këram ñii ñu def leen sunu bakkan yii ku bëgg a jëm ci ñoom ñu jëm ci yow ba jeex ku leen bëgg a cof ñu ne la fi ñukk lu nu wax ñu daw jëm ca lu nu xool ñu daw xool foofa mu doon benn bëñ ci ñun fonk ca weex nuy fonk ku ne murit nu dal sa kaw ku ne sunta mbàkke doolub sang ku sant neneen waaf fi suuf te nag ba àdduna tukki foofu lay daaneele ba àddunay tukki ñaar rek ay am alaaji sëriñ soq bi mii ak siñ takku bi sama xarit nga ak sama gaayin nga taxut muy sunu gaayin ba muy sunu sëriñ ba muy sunu sunu xarit du xaritub kenn ci nun du gaayinub kenn ci nun sunub sëriña nay leer waaw du gaayinub kenn ci nun sunub sëriña ndax ba àddunay tukki lu mu woyof woyof bokk ci sëñ Tuubaa dib sëriñ takku njaay mii ngeen doyloo ma yàgg koo fekk Mali mu yàgg ànd ak sëñ bi di taalibeem sonal sëñ bi ba jéggi sëñ bi di ñëw di dal ci moom Mali ngeen dem ba xool ni mat na ko ngeen jox ko xam ngeen ni nelawu leen de yéen waa Mali yéen waa Mali nelawu leen de ci Alaaji Maam malaa fa jëkk ñëwee barke sëñ Bamba sëñ Tuubaa xoolal wala tax si bana la si na xutulu fii sabilillahi amwaat bal ahyaa inda rabbihim yuxsanuun dem na àjjana yàgg na bu nu am complexe ñun murid yi nooy dem àjjana direct nun la nun noo ànd ak sëriñ bi nga xam ne daloo faggul àjjana ba téye ko denc ko jàmm yàlla goo mën a yaakaar ci àdduna liggéey Sëñ Tuubaa ku gën a gaaw ci àjjana gu mu mën doon rek loolu faaw nu xam ko murid ñi di leen tiyee ñi xam a ña ñi xaw a xàmmee aaya yi déggunu ko exemple naa ci joxe gis nga Sëñ Tuubaa dana woon bu nu firi alxuraan ñun ñu ko firiwut ñoo dagg ñoo gën a dégg alxuraan ñun ñoo gën a toppali alxuraan wax ñoo gën a daw li mu tere waaye ñi nga xam ne dañ cee di ko jéem bis bu ne ñu xuloo baa ñu xeex baa ñu werante ba tey ñoo ngi werante téere bu génn werante ak sa borom ndax liñ koy jëmee firee tax kon nan góorgóorlu ber sëñ Tuubaa ber tam gii loolu moo xew gi nga lii gars yi di wax benn pied la islam dese mooy sëñ Tuubaa moo ko waxoon it mu ne nag pied la islam benn pied lan dese ci lislaam mooy sëriñ Tuubaa coow la ngeen di dégg lépp ñi xeex l'islam sëñ Tuubaa leen të ki dem rek bu feebar bi amee fépp lan éliminé sëñ Tuubaa doo ko des loolu yéen ñëpp ko gisandoo barke siñ tubaa bi mu waxee bi sëñ Muntaxa waxee ba tey feebar bi bu nekkee ci réew mi mënatu fi sëñ Muntaxa sëñ Basiir wax na ko rek ci màggal gi bu fi feebar deseet amatu mën na lu tudd kenn dara dara dara dara dara nan way way wax ji na sax mi ngi bari sëñ maa ngi jégalu nan way rafetal sunu taalube jàpp ñi yéen waa Mali de am ngeen ndam am ngeen ndam li leen may ndam laa lay wax man xaw ma seenub liggéey ndax miinu ma ko te dama fay géej waaye mooy jàpp kenn muy seenum sëñ Tuubaa ngeen def ko seenum sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa ni leen mu ngoog mooma ngeen ñëwaat mu yóbbulaat ci doomi sëñ Tuubaa ji xalifa mu ni leen mooma ngeen ñëw ci Alaaji Baara mu ni leen mooma ba tey sëñ Muntaxa ni leen mooma ngeen ni mooma loolu ngeen amee sens ñun ñi ko xam ne kenn mënu ko ñàkk ca barke sëñ Tuubaa ku wéet ak moom wala sëñ Tuubaa ju dëgër ju wóor joo xam ne da nga koy jàpp kon nag maa ngi wàcc foofu sama kàddu man fo waaw waaw bay bay bay ka nee na bay Babacar Ka ne sëñ Muntaxa nee na nee sa kilifa da nga koy bàyyi sa bopp bàyyi koog boppam nun nag am nañ kilifa ñu sunu bàyyee sunu bopp ak sëriñ seexu bi mii bàyyi koog boppam mu jàpp sunu nos dina womat dina toog ci loxol sëñ Tuuba tolloo rek doy na ndax lu ko moy li ko waral mooy nee mboolem ku sëriñ seexu bi bokkal way jur ci zaahir la wax nag ne képp ko xam ne nii sëtub sëñ Tuubaa ga direct ne ka fa doon <coughs> am na fu mu ko teg moom mi alaaji sëñ Saxum mi te li ko waral nangu doonub taalibe bëggut xam dara ba lay dëgg la lii rek wane na ko yal na sa borom bàyyil ko fi rek waaw te li mu nu yéene yal na ko suñu borom defal ñun tamit duñ ko yéene nag soo ko suñu defal jërëjëf donc nu bokk nag maase déglu sëriñ bi nun doon doon wax rek ay taalu bay wax léegi sëñ bay wax waxi sëñ bay jariñe déglu leen jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw sëriñ bi sëriñ bi dong yaa ngi nii li nga di nga déggul suñu kaddu tey tey li nga li nga li nga li nga li nga li nga li sëriñ bi sëriñ bi dafa nuyu sëñ tàkko bi ko sëriñ bi noo lay siyaare ndongo yaa nii Euh, tey ñaan nga ñaanal noonu. nee lu ñu ñaan nag Mbacke nga ñaanal nu. ñu fekke ko naga ni nanu ko fekke naga ni déwén. amiin. man. ca loolu man. bu déwee ñu man lu ko ëpp. bu déwee nee ñu man lu ko ëpp. Euh, demuñu kër sëriñ ba nag tey. nee tey nag àgguñu ca kër sëriñ ba. suñu doxalee wax. barki démb barki bi ci guddi. ndax ne barki biig ci guddi. dama doon woo Cheikhouna Sylla. ne dama doon woo Cheikhouna Sylla. ndax moom yi daa yóbbu ci sëriñ bi. ndax moom seen daa jaar jëm ci sëriñ bi. Mm, daaw. ne daaw. moom la ñu mm, sëñ pap sëñ sëñ Babacar Ka. moom la ñu sëñ Babacar Ka mii. mooy ka taxawoon tiim sëñ bi. mooy ka taxawoon tiim sëñ bi. daaw man koy ziar Cheikhouna Sylla moomee. mooy Cheikhouna Sylla moomee ngeen xam. bi ma bi ma sëñ Takko wooyee. ne bi ma sëriñ Tako xamal ko ne ma mi ngi ñëw. xamal ko ne ko mi ngi ñëw. ma woo ko. ne ma woo doon ko laaj alxames bi. ne doon ko laaj alxames bi. di ko ko waxaale. di ko ko waxaale. Mm, mu ne ma uh, waaw waaye sëñ bi de mi ngi nii. ne mu ne ma waaw waaye yow sëriñ bi far sëñ baa ngi. xaaral ma jox la mu daal di koy jox. ne mu daal di may jox sëñ Mountakha. mu nuyoog moom. ne ma nuyoog moom. ne ko lii de ëpp na ci man ne ko ah Mbacke lii de moom ëpp na ci man damaa waroon a sol sama dàll ñëw ci yow de damaa waroon a sol sama dàll day Mbacke ñëw ci yow foo ne ma wër ba gis la foo nekk ma wër ba gis la bëggoon nun dongo nag nu waxtaan ba noppi ndax bëggoon kat waxtaan ba noppi mu doog ci yow mu doog ci yow mu ne ma tey de man ngay waxal mu ah, wax nee ma daal ko koy wax ne ma waaw le man de dama dama damaa génn fi mu nii ne sëñ bi ni ko man nag damaa génn fii mu ne. waaye dama lay jox Seexuna mu wax la. waaye nag dama lay jox Seexuna mu wax la. mu daal di may jox Seexuna. ne mu delloo ma naa ci téléphone bi. Seexuna xamal ma ne ma dimanche. ne Seexuna xamal ma ni ma dimanche ji nu dëgmal. Hmm, doon dana mën a ne dana mën a ne. dana mën a nekk. ndax sëñ bi day ñëw samedi. ndax sëñ bi day ñëw samedi. waaye nee na bu dimanche. waaye nee bu dimanche. foo ko bëggee da da da da nga fa ñëw. ne foo ko bëggee nag nga fi ñëw indaale ñi nga ñi ngay àndal àndaale ñi nga bëgg a àndal ñëpp kon loolu ndigalul sëñ bee kon nee na loolu ndigalul sëñ bee mi ngi koy xamal sëñ takko euh, nag sëriñ bi ñii nag yàgg naa ñoom sëñ bi nee na sëriñ bi man ñi yàgg na ma ak ñoom waa Mali waaye jàmbaar lañ waaye ne jàmbaar lañu euh, ñi leen man nag bëriwut ne ñi leen ñi leen man bëriwut de yéen waa Mali am na foo dem te mu ma fa ne mu ngi waxe sëñ takko nee na ko Mbàkke nag yow am na foo dem te déwuma fa waaye am naa fa ma dem nga dem fa ma dem fa. waaye nag leen man bëriwul. waaye daal xam naa ne daal waa Mali moom ñi man bëriwul. seen addiya yi. nee seen addiya yi. na ci 6 millions. àgg na ci 6 million awul benn million. ak yu sew ya nag. nee sëñ bi nee na ak yu sew ya nag yu sew ya. màggal nañu tamit nag. ne màggal nañu tamit nag ba noppi. sëñ Tako Ndiaye moo assisté woon gi. ne sëriñ Tako Ndiaye mi ne ca boppam moo assisté woon gi. rey nañ fa fukki nag ak ñett. ne rey nañ fa fukki nag ak ñett. waaye waaye laalut xaalisub sëriñ bii nag. waaye nee na loolu taxul nu laal xaalisub sëriñ bii di juróom benn million yi ma wax. dongo dongo yaa ko joxe. dongo yaa joxe. ak sun bokk ya nga xam ne ñooñ lay bokkal toroxe yi muy waa lislaam yi. mu ne ak muy waa kër Alaaji Malick muy waa waa kër seen Alaaji waa kër Baye Ñas waa kër Ñas ya kenn ku des kenn ku des ci jullit kenn ku ne indi na sa kenn ku nekk indi na sa ñu def ko ca màggal ga nee ñu boole ko ñoom ñëpp def ca ga njabootug sëñ Tuubaa fa nekkit nag mais njabootug sëriñ Tuubaa fa nekkit nag kenn ku ne am na fa mbooloo kenn ku nekk am na fa mbooloo kenn ku ne indi na jëfam kenn ku ne andi na jëfam nee na ci biti wax te sëñ bay wax kenn ku ne indi na jëfam ne sëñ kenn ku ne andi na fa jëfam euh, jox ko si joxe ko ne joxe ko ca liggéey ba muy njabootu Cheikh Mamadou Moussa muy njabootu Cheikh Mamadou Moussa al Karim ba ci njabootu Cheikh Mamadou Mourtada ba ci njabootu sëñ Mourtada Mourtada njabootu sëñ Fallou nga xam ne ñun ta ci lañ bokkit noonu maa ngi alaaj sëriñ mais njabootu sëñ Fallou nga nekk nga xam ne yëpp si sëriñ bi Mbacke yow sëñ Tàkko yaag man ca la nu bokk Bakar Yali mi jiite ko sëriñ Bakar Yali bu baax mi jiite ko

dongo yaa ngi nii. nee na léegi nag dongo yaa ngi ñooñu li ñuy jànkoonteel. nee ah waa ma ne li ñuy jànkoonteel. dépasse ba. nee ña feebar ña. ña feebar ña. ña tukki woon te mënuñoo ñibbi. ña tukki woon te mënuñoo ñibbi. ña nga xam ne nii eh, yàgg trente quarante ans wala trente ans danañ ko def ci àll. ña nga xam ne nii bi mën nañ cee def fanweeri at wala fukki at. di dox ba egsi di dox ba egsi fa. ña nga xam ne dañuy wopp a ña nga xam tawat ñu faj leen ba noppi ñu faj leen leen indi doog leen andi ak ña fay noppalu ak ña fay ñu di leen teg ci oto di leen indi duñ xam luñ xeetu doon da nga xam nit dina fa wàcc liggéey ñu teg ko ci andi andi te duñu xam fu mu fan yële ne fan yële am na ko faatoo woon Bambey ne am na ko faatoo woon Bambey Bambey sëñ bi indi nañ ko ba Sénégal gii. ne indi nañ ko denc Touba. bëgg koo denc Touba ñu ne ab tijaan la. ñu ne ko indil Bambey. nañ ñu ko indi nañ ñu ko indil Bambey. nañ ñu ko indil Bambey. ñu woo ma wax ma ko man leen ñoo moom seenum néew nañ leen ko yot. ñu leen ko yot. ndax sunu suufit nu nit ndax sunu suufit nu noo ko moom ñu daal ko yóbbu Bambey sëñ bi nga xam ne noonu lay demee noonu lay demee mi ngi wax sëñ bi li xew Mali la cay dolliku mais kër sëriñ bi ci jëmmi sëriñ bi rek kër sëriñ bi ci jëmmi sëriñ bi rek euh, dépasse ba sëñ bi mais dépasse kër sëñ Touba gën Mali rek moo moo moo gën a bari suñuy dépasse noonu mais euh, weer woo xam ne mais weer woo xam ne bu matul cinq cent mille bu matul cinq cent mille dana ko ëpp tuuti wala mu jege kon mais kon dëkk boobee day buntub Afrique. nee dëkk boobee day buntub Afrique. waaye. waaye. jàmbaar lañu. waaw waaw man daal jàmbaar lañu. te ginnaaw yaa fi toog. te ginnaaw nag Baye Serigne yaa fi toog. te li ma lay wax nii. nee ca man sëñ Sokh mi li ma lay wax lii. danaa ko wax Serigne bi. dinaa ko wax Serigne bi. incha allah incha allah. waaye ginnaaw yaa fi Serigne bi. ginnaaw yaa fi Serigne bi nag. soxna Mame Bousso di suñu kilifa soxna Mame Bousso Mbacké mii di suñu kilifa nu toog nun dongo yi nu toog nun dongo kon yéen ñi fii sëriñ si kon yéen ñi fii sëriñ si il nu dugal ko seeni nopp il faut nag ñu dugal ko ci seeni dongo yaa ngi nii dongo yaa nii man nag man man nag mutuma seere sama diggante ñoom ah sëriñ Cheikh mi nee na Tako man day ma diggante sama diggante ak Mali mënu ma leen mënuma leen seere wax naa ko làmp barki démb nee na man de wax ko lamp caam mii barki dem dama koo paas sëñ Muntaxa nee ne ko kiikat ni ko kii ca mbooloo ma la bokk te ginnaaw yaa ngi may wax li may wax dama la koy paas sëñ bi dama paas ma paas sëñ ma paas ko la lamp ma paas moom lamp nuyoo ma sëñ bi nu wax la ñu wax ma wax la di ma téléphone ma daal di téléphone bi waaye pas pasub nit ne sëñ Tuubaa sëñ Seexu bi nee na pas-pasu nit lu mu ko mën tamay amul lu ko mën tamay amul déglu leen de làmp moom muy ne làmp muy sëñ bi mu jot ne sëñ bi mu jot pas-pasama tax sëñ bi ne pas ba muy njëkk a ñëw Mali <coughs> laa ba laa ko xam laa ko xam waaye pas-pas waaye pas-pas moom laa nekkee ñoom moom laa nekkee ak ñoom Bakar Yaali mii ne Bakar Yaali mii moo fa nekkal sëriñ bi loolu la nekkee ak moo fa nekkal sëriñ bi moo fa nekkal sëriñ ña fay dem ci bokk ci sëriñ Fallu nee ñun seen taxawaay gis nañ seen taxawaay te mbooloo ma fa nekk nag te nag di liggéeyal sëriñ Tuubaa di liggéeyal sëriñ Tuubaa kenn mënu leen ci kon nag loolu dama la koy seereel kon ndax sa njaboot lañu ndax sa njaboot lañu waaye nag waaye nag gaañaa ngi nii sëriñ bi gaañaa ngi nii de sëriñ bi dañoo bëgg wér ne dañoo bëgg wér bëgg xaalis xaalis bi nag ne xaalis bi nag addiya lañ ci bëgg a joxe. ne addiya bëgg a joxe. yor ci njaboot gi yor ci njaboot gi loolu moom loolu daal la ñu bëgg moom. loolu daal la ñu bëgg moom. li ci des nag. la ca des nag. nu bàyyee koog sëñ bi rek. bàyyee koog sëñ bi rek waaw góor a ndax moom bu dee man moom. mais bu dee man en tant que man Serigne Cheikh Oumy Mbacké seen seen i taalibe rek la ñu doon man moom seen i taalibe rek la ñuy doon man samay xarit lañu di samay nawle te ñoom nag ñoom samay xarit lañ di samay nawle ndax man ab taalibe rek laay doon ndax man ab taalibe dong laay doon sañu maa joxe sañu maa joxe sañu maa wax wax yi may wax sax jëru ko nee na li may wax sax daanaka jëru ko waaye dama la doon seeral rek waaye dama la doon seeral rek seen bi ne addiye ji mi ngi nii ak man addiye jaa ngi nii ak man ñu ngi ko teg nañ ci sama loxo noonu lañ ko tegee ci sama loxo pour ñu bëgg a xaar ba dimanche ngir ñu nag ba dimanche ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko am nay bagage yu ci bokk am na ay bagage yu ci boole am nay basang am na ay bassin juróom ah, fukki am na lu ne lu ci ci ànd am ay sesaan yu ci yoo xam ne moom sëñ bee ko moomal boppam yoo xam ne sëriñ bi ci amoo ko te noonu lañ nekkee noonu te nañ lañ nekkee nag ab ba yàgg nag ba léegi nee na ko nekkee sëriñ Ibrahima Guèye ngi fi ne sëriñ mooy mooy mooy jiite njaboot yi ne moo jiite njaboot gi sëriñ Babacar Ka sëriñ Babacar Ka moo yor kaddu gi naka jekk nee na naka jekk euh, gone yaa ngi nii gone yaa nii ñi nga xam ne ñooy ñooy wax buñ fa nekkee ñu ngi fi ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi di dox ko wax jàngkati xasida yi ñu ngi fi jàngkati xasida ñu ngi fi euh, ñëpp a ngi fi rek nañ mbooloo mépp a bu ko bu Bakar Yàlli toogee mel nañ tudd nañ njaboot yëpp rek nee bu ñu tuddee Bakar Yàlli nañ tudd nañ njaboot yëpp waaw kon sëñ sëñ Ibrahima nee sëñ Ibrahima euh, um, sëñ bi moom bu xasee ba wax nee sëñ bi moom bu xasee ba wax xanaa dama dama sob rek di wax waaye Ah, yaa waroon a wax li ma waroon a wax lépp rek waaw yaa waroon a wax lépp sëriñ yaa ngi di la ñaanal nag yow it. yàlla bàyyi la fi. yàlla bu ngeen bu ngeen fi yàggee rek. Ah, bu ngeen fi yàggee rek. ne sunu njariñ njëriñ la ñu. waaw te di leen jox nuyoo sëriñ Abo mi nga xam ne. sëriñ Abo mi nga xam ne mooy sunu sëriñ di sunu kilifa. mi nga ko Cheikh Mamadou Bachir. jaarale ak sëriñ Abdou Fatah mi yor kaddu kër gi. ak waaw di leen sant nag léegi rek jot naa ko ci bi may bi ñuy bëgg añ nee na ma ndax ñëw nañu ma ne ko waaw mu laaj ma ñoom de ñoom de ñoom de yàlla boole na la ak ñoom ne ko mbaa dag ma ci ñaanal ma ne ko sëñ bi mbaa nga ma ci ñaanal mu ne ma noo ko bëggee rek mu ne ma noo ko bëggee rek kon jeex na waaw kon jeex na waaw sëñ bismillah ba mu wax ñaaw njaboot gi kenn amu ci jot wax dëgg yàlla nee na kenn amu ci jot waa ñu ngi ci rek ndax dañ koy dañ koy bàyyi xel mais te dañuy bàyyi xel loolu de. te te li ci gën a yéeme. mais li ci gën a yéeme. at mu jot dan koy dan ko dan dan koy dan day day neex ci noonu. nee na mu jot sëriñ bi nee na affaire day neex ci noonu lool. ndax man gileem laa rey sëñ bi. ah ndax nee na man gileem laa rey rek de. te te bëgg di ko def ba muy doon nga xam ne kenn ku ne kuy dem da ngay tibb nee na te da bëgg nga ñaan mu doon loo xam ne day xéwal ba ku ñëwati di nga yóbbaale ci ci ci kilifteef yi sëñ Lamine mi nga xam ne moo jiite kër gi te nee na sama kër gi ñu koy defee si ci njiital sëñ Lamine Mbacke sama rakk ji nga xam moo jiite liggéeyub kër gi ak sëriñ Fallu ak sëriñ Modou ñoom ak sëriñ Fallu ak sëriñ Modou ñoom sëriñ Cheikh Gueye ak njaboot gi rek ak njaboot gi rek ak ñoom ñëpp rek bu dee jigéen ñi so moom soxna ajeek ak ñoom ñoom may si la ñu ne ci kër gi nee na bu dee soxna yi soxna aji fay ak soxna may si la ñoom ñoo ne ci kër gi jàpp nañ ci bis bi wax dëgg yàlla te ñoom ñëpp jàpp nañ ci bis bi wax dëgg yàlla rawatina sëñ Lamine mi nag Serigne Lamine mii moom beral nañ ko cant ñu ngi sant bu baax a sant bu baax euh, di sant nag sant nag euh, xanaa xamoo ne El Hadj Serigne ah sëñ soxna ne ko waaye xanaa sëñ tàkko xanaa xamoo ni El Hadj Serigne mii tàkko mii El Hadj Serigne bañ ko joxee liggéey beeg léegi bañ ko joxee liggéey beeg El Hadj tàkko Ndiaye kon day wax sëñ tàkko Ndiaye waaw musuma moom ne ko liggéey bi nangam ak nangam na bañ joxee liggéey beeg léegi musu toog ak moom ni ko liggéey bi nangam ak nangam loolu keban la ndax euh, maa moom li nu séq fa am leneen lu mu doon lu bokkut ak lii mu yor ndax nee na maag moom dafa am leneen lu nu séq loxo xam bokkul ak li mu yor te xam naa ne moom ku nu yar la nag waaye nee na mu wér xam naa bu wér ni moom ku nu yar la ba ma ko xamee ak léegi nee ba ma xamee Takko Njaay ak léegi musumaa tëdd cib lal nee musumaa tëdd cib lal mu tëdd ak man cib lal mu tëdd ak man cib lal tey musunoo bokkub néegit nag nee musunoo bokkub néegit tam kon kooku am na pas-pas bu nekk ci moom. nee na kon kooku maa ngi seede ne am na pas-pas bu nekk ci moom. te xam nga waajuram. te nee na waajuram. Cheikh Ibrahima ko seexal. nee na maam Cheikh Ibrahima Faal ba jox ko li mu yor. ba jox ko li mu yor. waaye waaye moom de. waaye moom de. yóbbu ma de. mais yóbbu de. moo tax lu mu yor. moo tax lu yor. damay xam ne war na koo mën a damay xam ne na yor ah, kon nag mi ngi noonu. kon leen. ah gënul gënu leen sëriñ bi nee de waaye yàllaa dogal moom waaye yàllaa ko dogal rek ci moom ci pas-pasam nag pas-pasam nag la ko amee kon nag yàlla yàlla taxawu kon te di leen ko doolee dénk rek mais sëñ bi nee waa Mbalit maa ngi leen doolee dénk sëñ Takku Njaay ndax am na ci ñoo xam ne ci gone yi ndax nee na am na ci ñoo xam ne ci gone yi ca Mali beroon nañ leen ngir man beroon nañ leen ngir man moom mii ci la bokkoon moom mii ci la bokkoon Bakar Yaali mii ci la bokkoon Bakar Yaali mii ci la bokkoon Jóob mii ci la bokkoon nee na Jóob mii ci la bokkoon Baye Mor Diouf yal na yàlla ko yokk yokk ay leeram nee na Baye Mor Diouf bokk yal na yàlla yokk ay leeram ci la bokkoon Galas Mbay ci la bokk nee Galas Mbay ci la bokk Moustapha Faye Moustapha Faye Nooru Diouf Nooru Diouf gone yi gone yi daa am ñoo xam dañ leen a beroon xam nga waa Mali de nee na ñooñu dañ leen a beroon ngir man ngir man tey te kenn musta teg sa bët te nee na kenn musta teg sa bët ma waye bi ma waye bi loolu du am mukk cat kon nag sëñ bi. buñ demee tey. buñ nuy def ne ma yaa koy def. ba lu nuy def ne ma sabaaya kon nag kon nag ñu ngi nii rek kon ñu nii rek. kon ñu daal moom jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah. ah. Ah, a dégg dara de. <laughs> daa mel ne sëñ bi bu a dara ne matale xanaa. confirmé ko li mu wax rek. ne wax ji sëñ Cheikh mi wax mat na sëkk xanaa confirmé ko li muy wax. ci pas-pasu dongo yi. ci pas-pasu dongo yi. waaye ñu tudd ci ñi nekk Mali. waaye nag ñu tudd ci nag ñi nekk Mali. ndax lii muy wax nii. ndax lii muy wax nii. bi ma fa jógee tey. ne bi ma fa jógee tey. yaakaar naa ne tey la ñaata fan ci weeru tubaab. yaakaar naa ne tey la 22 ci weeru tubaab. 22 bii weesu. ne 22 bii weesu. fa la ma fekkoon. ne fa nee na ñëpp jàpp ci. ci pësteef ci pësteef. ci bëgg Serigne Touba. ci bëgg Serigne Touba. te wane ko. te wane ko nag. mu indaale leen seere. ne mu indaale leen seere. du wax ne. wax ne. ñu bëgg Serigne Touba ñu bëgg Serigne Touba lañ. ñu amuk taalibe lañ ñu amuk taalibe lañ ñu feeñal seen pëstéef la tam ci mboolem njabootu Serigne Touba gi ñu i jox sëñ Cheikh Oumy cër lañ nee ñu jox alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbacké Fallilou mii cër lañ xam naa ci lu wér nee man Serigne Tako xam naa ci lu wér kon nag yàlla nu suñ doolee dimbale kon amin addiye ji nag nee addiye ji nag li mu ci wax nee li mu ci wax ñu indi ko ñu andi ko ñu xam ne seen pëstéef romb na foofu te nu xam ne ñun seen pësteef romb na foofu dama ci yokk dara rek nees dama ci yokk dara rek loo xam ne ci sunu baay sëñ Cheikh Thioro lañ ko daan déggee loo xam ne ci sunu baay sëñ Cheikh Thioro Mbacké lañ ko daan déggee mu wax ne mu wax ne dafa am bis boo xam ne dafa am bis boo xam ne daayira yi dañoo ñëw ci kër sëñ Fallu daayira yi dañoo ñëw ci kër sëñ Fallu jébbali seen am na ci jébbali seen i addiya jébbale seen addiya ba ñu waññee ba ba ñu demee ba ca guddi ga ne ba ñu demee ba ca guddi ga ñu génn enveloppe bi ñu génn enveloppe bi di xool daayira yi fi ñëw di xool daayira yi fi ñëw benn bu nekk la ca nekk benn bu nekk la ca nekk mu am ci daayira boo xam ne mu am ca daayira boo xam ne ndakaaru la jóge ndakaaru la jóge ñu bind ci kaw enveloppe ba ñu bind ca kaw enveloppe ba lu ëpp la ca biir lettre ba ëpp la ca biir xaalis ca biir lettre ba dégg nga de ñu di ko jàmbat lool ñee na ñu di ko jàmbat lool ba wax ko sëriñ bi ba wax ko sëriñ bi mu ne leen wax nañ dëgg de mu ne ah wax nañ dëgg de li nekk ci enveloppe bi li nekk ci enveloppe bi liñ bind ci kaw liñ bind ci kaw ñoom liñ fi indi ëpp na ko ñoom liñ fi indi ëpp na ko ndax dëkk bañ jógee ndax dëkk bañ jógee fa lañ jaarale woon borom jumaa ji fa lañ jaarale woon borom jumaa ji naa ko li ngay woote du fi amee naa ko li ngay woote du fi amee ba yóbbu ko sànki ko ba yóbbu ko sànki ko ba jéem ci moom ba tëlee delloo si ko ba jéem ci moom te dañ ko waxoon ne ko li ngay woote du fi amee te dañ i daayira ñoom ñii nag ñu def seen i daayira di wax borom barab bi ne ko ko li nga doon wax li nga doon wax yawa yawa naan ko yawa naan ko yawa jóge ndakaaru jóge ndakaaru ba agsi ba agsi te ba ñu ba ñu dajalee seenub daayira ba def ko ci enveloppe bi ba ñu dajalee seenub daayira ba def ko ci enveloppe bi kenn ku ci ne kenn ku nekk da ngaa lamb sa poos da ngaa lamb sa poos ñu wut paas wut paas ñëw ñëw ba ñuy ñëw ci yoon wi ba ñuy ñëw ci yoon wi fu ñu taxaw fu ñu taxaw jënd nañ ca ñee jaay dara jënd nañ ca ñee dara ba ñu agsee fii ba ñu agsee fii dem nañ ca marché ba dem nañ ca marché ba kenn ku ne jënd nga fa dara kenn ku ne jënd nga fa dara kenn ci ñoom ku ne kenn ku ne ci ñoom ba nga may jox loxo ba nga may jox loxo lamb nga sa bopp boole ci dara lamb nga sa bopp boole ci dara boole ci dara kenn ci ñoom ku ne kenn ku noon ci na dem nga ca barabu sëñ Tuubaa bi dem nga ca barabu sëñ Tuubaa bi lamb sa bopp def fa dara lamb sa bopp def fa dara yéen ñii toog itam yéen ñii toog itam ku ne sa poos dara ngi ci kenn ku ne ku ne sa poos dara ngi ci te ñoo ko ci def te ñoo ko ci def kon loolu lépp ci addi ji la bokk kon loolu lépp ci addi ji la bokk kon addi ji ngeen indi kon addi ji ngeen indi fa ngeen ko doon dajale fa ngeen ko doon dajale la ngeen fa màggale la ngeen fa màggale li ngeen paase li ngeen paas li ngeen nu nuyoo ba ci man mii mujj dugg si ñu bari làmbañ seen i poos jox ma lépp ci addu yi la bokk kon yal yal nangul barke barke sëriñ Tuubaa barke sant nan bu baax waaye sëñ Seex waa Mali waa lañ de kuñ xaasal nag xaasal leen am nga ci sa lu bari ne am nga ci sa bàyyi lu bari. tibb ca dolli leen Mbacke. ne tibb ci nag Mbacke dolli leen rek na ko de ah da jar na ko ndax xam naa ci lu wér. Ah, naa ci lu. kon noo ngi siyaare sunu noo ngi siyaare sunu kilifa gi baax. nee nu ngi siyaare nag sunu kilifa gi soxna maam bu baax. ndax jëmm la joo xam ne. ndax nee na jëmm la joo xam ne. ku ko fekk ci wu meloom. ku ko fekk ci wu meloom. mën nga koo cof man nga koo cof te doomi sëñ Fallou te doomi sëñ Fallou ci te ku nekk ci la mu war a nekk la te ku nekk ci war a nekk la foo ko sëñ bi tegoon ba fi mu ne jógu te ab dong rek la fa def boppam mais ab dong rek la def boppam loolu mu fa am léeg-léeg mu fa am lu mu fa am lu mu fa am man liggéey na ko jar nee liggéey na lu ko yàlla na ko jariñoo yàlla na ko jariñoo maam bu moom itam bu baax waaw loolu di soxna maam may soxna may bu baax di ko ñaanal soxna may suñu baa ngi nag mu ngi lay ziar baax di la ñaanal gis na ne waxtu ne ñooy bokk jotaay bi ndax nee na waxtu ne ñooy bokk jotaay bi noo ngi ko ciy gërëm di ko ñaanal bu baax noo ngi ko ciy gërëm di ko ci ñaanal bu baax jël cant gi di ko teg ci loxol suñu Ibrahima Guèye mii mais noo ngi jël cant gi di ko teg ci loxol suñu Ibrahima Guèye mii di bokk ci di magi magi magi magi waa Mali bokk ci magi waa Mali di ku baax di ku baax nekkoon faak ñeneen nekkoon faak ñeneen yàlla ña ca des yàlla dogal ñu jiitu ji ña ca des yàlla dogal ñu jiitu ji yàlla neen yàlla jégal te yërëm leen yàlla neen yàlla jégal te yërëm leen yàggal leen ak moom ñu ci def yéen ñi fi nekk nag mu yàgg leen fi am yàgg ñëpp suñ Mbàkke Seeg ñi mag yëpp rek ak suñ Mbàkke Seeg ñi mag ñëpp suñ Babacar Kam itam suñ Babacar Kam itam di teglu loxo ci jë di teglu loxo ci jë di teglu loxo bi ci jë <laughs> moom daal li Seex li mu wax moom daal li Seex wax damaa gëlëm ba mënutuma cee dolli dara waaye sant gërëm rek waaye sant waa waa waa waa ko ko wax ci foofa noo ngi beralaat ak sant waa kër sëñ ña nekk Mali di ko teg ci loxol sëñ Babacar Yali di ko teg ci loxol sëñ Babacar Yali ak sëñ Lamp sëñ waaw ak sëñ Lamp ak sëñ Lamp ak mboolem dong yañ ko bokkal léegi ndax dafa mel ne boo demee. ndax dafa mel ni boo doo a xàmmee. doo xaw a xàmmee ñii tuddoo kër sëñ Fallu. ñii tuddoo kër sëñ Fallu ak ñii tuddoo geneen kër. ak ñii tuddoo geneen kër ñëpp sëñ ko ci loxol sëñ Tàkku Njaay mii. teg ko ci loxol sëñ Tàkku Njaay mii. di ko ñaanal gudd fan ak wér. mais sëñ Tàkku Njaay ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak li sëñ li sëñ Jax du jaxasoo. du jaxasoo du jaawale. du jaawale yàlla na ko yàlla defal cat. gudd fan ba mu yóbbu liggéey fu gën a kawe. amiin gudd fan ba mu yóbbu liggéey fu gën a kawe. amiin barke ñi fi ñi mu jaar ci seen loxo ñëpp defal tawfeex ñi liggéey bi jaar ci seen loxo ñëpp. defal ko defal rek bak ko taalu bi yëpp ci bak ko teewaat bi ne yàlla nañ ko teewaat nëgën déwén ma la tey la euh, mooy dayre sëñ Fallu bi na nañ na ginnaaw tey la 22 mooy daayira sëñ Fallu bi nekk ba xam ngeen ni 22 bi daam baatin sëñ bi am 22 2022 ñaari 22 lu mu doon 44 mooy Bamba Bamba Mbakke xanaa 22 mooy Mbakke boo ko boolee 66 la lay jox muy allahu di yàlla gaaw leen joxe addi yi na bar ah nee na tamit ci ci safar mooy huwa wahabu e kon ku bëgg dara ñëwal nee moom mooy maye. kon ñëw leen ñëw leen xaaral. waaw waaw waaw maa ngi la koy maa ngi la koy maa ngi lay delloo Alaaji Bara mënoon naa leen dul fal. ala ala ala na addee ñu ñëw na addee ñu ñëw addee vingt-deux bi vingt-deux bi addee vingt-deux ba jamal addee vingt-deux bi ذكرك مقرك عنك أبي بنت أبي بنت أعرف لي يا ربي في الحروف waaye sëñ bi yéen a baax mbàkk waaw gën sa ngir mooy xaw waaw boo ko dajalee gën sa ngir wax amul dëgg la kay tàmbali inshallah inshallah yàlla jàll man dam lay jàmm rek inshallah mu ne bala moo di wara ma ca wara ma caare naa jëri ñëw naa jëri ñëw naa jëri ñëw

تناجي بجل كفاء الكمال الأكرام أصبح الكرم سيد فالمين daa bëgg nga ñaanal ko bu baax a baax moom ñu ak boo ko waaw ñu ne kër la bëgg fii ak war waay بارعة لحاجة يا حي يا قيوم سل بسلام حبيبي na ñëw na ñëw جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام سلم وسلم والتقبل adeji bare gu nana adeji munna ala dam nana adeji adeji ben doji adeji ben doji ima yafo سلم المرجيا للازم الحروف لتربى يا من كفى ذا الغرور والمباح قل لي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساسلا مسلما على مزحزح الخلاق نفسي وديني سمعاني والولد ومسكني لك وديعة الأبد وكذا يا مولاي ففي عمار عزري بالرزاق ما نجيو ما نجيو واسري عسى من نار عن جملة من ليتحلق من أبناء الزمن وجلة الإخوان من أقاربها في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إسلام ولا بريا سماد تولني ولا تكلني للأمات ورم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلم سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي عبد حسن الختام من عندك والبسم بالسلام nañ ko fa àddee ji rek naaj bi ñëw rek jéego jéego mu jaay ñu dem ko mu jaay la bëgg mu jar ñaanal ma ko da ko jot alhamdulilah man jox naa samay aajo xutbub jamono bu feeñ mooy faj samay aajo yaa bi mu yaay siraakul illaa yaay faj suñuy aajo yaa fi mat xutbu mat nga xawsu bi xaalim don nga xaatim rasool yaay faj suñuy aajo ba balla nu joomun bi deew sa ful weer sëriñ Fallu Mbàkke mooy weer wi leen di jox leer yi la xéewal mu set leeram yi te santoo ayub sëriñ Seex Umi Mbàkke mooy faj suñuy aajo jóg may jëkki mbaa may taxaw may yow mbaa may nelaw may noppi mbaa may dawaa may samay aajo diggante àll ci kër laa def ci man benn naa toog bi tontu di la woo ngay faj samay aajo diggante wee jëkk weti li ko beroot jaxasoo ñu ma ko déglu muy faj samay aajo sëriñ bi nee na ngeen taataan mi ngi ñaan nu teewlu Ahmadou Bamba ñaan waaw doo kee waaw waaw waaw suñu sëriñ bu baax bi sëriñ Tako Mbacke wax ni sëñ Cheikh Oumy xam ne li mu am ci sëñ Touba ca taalibe yi xaasal nañ ko nanu xaasal na xaasal waa Mali ak ñu ne fii nee na waaw kon baax na waaw xaccal rek na dal xaccal rek ah suñu nee na xaccal bu dal dalal leen mit barkeb sëñ kon na dal de waaw mucc ak xéwal ak xéwal yu bëri yu mën liggéey la si ñu bëri gu ñu jàmm yàlla barke Muhammad ñu subu liggéey la si ñu yar bala barakallah waaw xaaral ma ñëw maa ngi ci yow maa ngi ci yow lii tam dafay nekk جملة إخوان من أقاربنا في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إسلام ونابر يا سماد تولني ولا تكلني للأمات ورم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي عبد حسن الختام عندك والتسلم بالسلام عن آله وحبلي الإجابة وكسب السلام للسحابة nee naa oto bu muy jaay la bëgg mu jar ñaan na ko da ko jox ñaan oto bu muy jaay alhamdulillah man jox naa samay aajo Bienvenue sur Salam Vision